ñu ngi may jàpp le 16 mars le 16 mars 2000 2020 euh, waaw 2023 ñu tr ñu def ñu defal ma mandat dépôt ma dem si Mamadou mu ne ma waa yow danaa njot da nga doon manifester acca léegi da ngay dem rëbës rëbës rëbës la la lay yóbbu le 21 ma dugg rëbës le 21 man loolu moom ma ñi ko def waaw loolu moom a ñi ko def kaa dama dugg deux jours ñu woor mais man après xam nga la moo tax ma fàtte sama bopp booy yu ndaw yu ma gisoon man foofu laa xamee ne nag te man mag laa man musuma xam ne mag laa dama dugg foofu ma gis ay boo yoo xam ne la may woowee papa ñi di ma wax tonton mu ne mais man damay réef wala nu mu demee nii ay booy yu ñu jàpp manifestation non mais soo gisee booy yi da ngay am ma dam dam fa jooy nag lu tax ma jooy mooy du sama bopp dama gis booy yu ñu xar seen bopp yi ñi ñu damm seen loxo yi mais ma ne leen mais yéen am benn booy boo xam ne bët bi leen yàqu ñu taf ko ma ne mais yéen la moo leen def nii ñu ne ma ñu nu jàpp ñoo ñu def nii mu ne ko waaye parce que ñii seen communication bu ma déggee ñii sañ nañu lii ñu dund fa loo xamante ne nii soo ko expliquer sa doomu aadama duñ ko comprendre xam nga tey ku la waxoon 3 mois nit ñi taxaw ñun bu ñu duggee fa dañ ne guddi bi 23h ñu ne taxaw leen ñu taxaw ñu ne da ngeen di tëdd ñu taxaw nii léegi ñu jékki-jékki ñu ne ba suba. après man sama xel moom ma may ne non lan moo tax ñu ne ba suba parce que néeg bi moo fees néeg bi dafa fees te ay booy yu ndaw la ñu jàpp booy yi nga xamante ne comme comme Diop lu mu wax kaaru moo moo sëy mooy sëy man dama koy xool man daf may def cas damay fàtte sama bopp booy bu ndaw la si benn mois si benn weer la papam gaañu ñaari fereeram am gaañu ba pare booy bi am na lu mu doon dem lijjanti pour affaire papam wala wala wala magam de parce que ñoom ñoo gaañandoo kii pap bi dafa gaañu tey ñu yóbbu ko di ko denc mag bi daanu foofu si armeel bi ñu yóbbu ko hôpital mu génn àdduna beneen mag bi dem di jooy si biir néeg bi ñu dajji néeg bi fekk ko mu gaañu moom tamit après ñu jàpp booy boobu booy bi dem wax loolu juge bi mais juge bi oh, dama rek après booy bi affaire bi def ko problème man ak moom ñooy toog di waxtaan mais booy bi day crise te loolu musu ko dal foofu la ko dalee après man affaire yi xamatuma lu may ñuróol mais dama dama dama ne woon comme booy yi dañu yaakaar si man bàyyi ma téye sama fit quoi man jarul may def yenn kii dama leen di defal di leen wax noonu léegi ñu ñibbi booy dund fa loo xam ne nii su ma ko waxoon tey fii nii xam naa ne léegi ñu jël si ma mais loolu xam naa ne après laa koy wax parce que am na loo xam ne mu ngi fa te ñu koy tere fii Sénégal si biir foofu terewuñu ko ay booy yu ndaw lañ doon jàpp di leen ko def man booy euh, booy après man su ma waxataanee booy parce que man Grand Yoff laa man lu may ragal awma ko mais dama leen waxoon lii soo la ko waxoon du ñu fii mais benn jour la claté mais loolu après dinaa ko wax quoi mais du léegi parce que man dama yaakaar ne prison Sénégal yi dañ ko war a xoolaat pour man war nañ ko xoolaat parce que booy fa ne a Maxa Keita booy bi mu ngi am 16 euh, 17 ans. di ans la am maxa ñu jàpp ko këram la nga ko fekk ñu ne ko moo bëggoon taal prise ginnaaw raay booy boobu su ma ko téye dama koy damm booy bu ndaw nekk fa dafa nekk booy boo xam ne xawul ñor billaay booy bi nekk di souffrir di dund loo xamante ne nii non parce que dañ ñu boole ay ñoo xamante ne nii ñii ay reykatu nit lañu ñii ay violeur ñii ay góor jigéen lañu guddi bi gars yi di xeex néeg bi di mel ni comme seeraas guddi bi gars yi dañuy xeex di jamante ay ràbb lancet bii lay wallaay boo yi di gis loolu mais man dama demee àdduna moo tukki wala nu mu demee loolu maanaam ñun danaa bëgg kii kii la ñu bëgg loolu rek moo ñu indil problème bi gars yi dañuy xeex foofu xeex yoo xamante ne nii da ngay ne déedéet man dama yaa man loolu si film rek laa ko doon gisee parce que ba guddi nga yeewu eh, néeg bi commencé yuuxu parce que ñu ngi nekk ay cent quatre-vingts personnes cent quatre-vingts personnes si benn douche trois mois ñiy taxaw nii trois mois da ngay taxaw nii man dama demoon benn su ma génnee mun naa ne gardien parce que taxaw bi ma taxaw nii da ngay taxaw 23h ba 6h du matin trois h ba 6h du matin man loolu laa dund taxaw 23h ba 6h du matin mais man su ma taxawoon ba gis booy taxaw nii rek sama damay découragé parce que dama ne booy yi sax xamuñu Ousmane Sonko xamuñu nu mu demee mais peut-être man bokk naa Pastef sax man peut-être man peut-être mérité naa lii quoi mais booy yi mérité wuñu lii. booy di fa dund yoo xam ne booy saa suñu yeewoo di jooy may dëfal booy yu ndaw quoi. booy yi nga xam ne xamuñu nu parce que booy yi ñu ngi am ay 16 ans booy yi 17 ans su la wanee booy sax da ngeen di déedéet affaire da ngay def ay ree quoi billaay wallaay man dama ne film lu ñu doon dund foofu parce que kaso bi lu fa nekk moo tax des fois ma dégg télé ku ne non bàyyi leen fa prisonniers yi damay ne non kii yëgul lu xew fii yëgul gars yi ñu ñu booleex booy yi fii ay assassin la ñu booleex booy yi parce que gars yi dañuy xeex foofu di jamante ay affaire yoo xam ne di fa xew te Sénégal kenn du ko yëg ay nit di fa xeex xeex yu métti lancet di jamante man xaw ma fu ñuy dug fu ñuy jaar ba dugal affaire yi ñu nekk fa di dund dund boo xamante ne nii foofu xar sax mënu fa dund ndox manqué fa trois semaines boo xam ne nii pour nga naan problème la. garde dañuy ñëw jël benn 10 litres si 90 personnes 10 litres ndox ñu ubbi bunt bi pousse leen ñu pousse ñu sànni ko ndox bi kenn du ko mujjee naan dañuy xëccoo foofu gars yi ne man damay toog rek waaru dañuy xëccoo ba ndox bi yëpp tuuru léegi soo génnee sibiti bu ut ndox mais man dama génn ma taxaw xool terrain bi. booy di dem pour ut ndox parce que ndox mi mu ngi doon commencé toog nànk-nànk gàddu da leen di dóor di leen sotti ndox mu ne ba tey ay reeb mais kii dafa mar naan parce que gis nga booy di songu garde yi pour dem naani waxee da lay wax silence amoo lay wax. te koo xamante ni waat naa ci yàlla ne nee na dafa génnoon di jënd ji bagage yor ay bagage am day jaay commerce la ñu jàpp ko ci noonu kon noonu la fa mbiri demee maanaam man li maam wax rek. maam taluma reetaan te na na sénégalais xam ne maam lii ñun ñoo koy xeexal suñu bopp mag sàll ak ñi mu àndal nañu gore te doon ay gor maam doon ay doon doon ay gor te dellu si dellu waat te xam ne jéggalu weesuwul tuub weesuwul maam nañ dellu si mu bàyyi di ñu jàpp ngir yàlla lillaay war a sóoli moom am na njaboot am na ay doom ñi nekk ci gouvernement bi ñoom ñëpp am nañ ay njaboot te kenn ku si nekk suñ jàppoon sa doom ni ngay reyee sa bopp ba ba du fanaan police loolu ñoom xam nañ ko kon ñu ngal la ñi fa des nañ leen bàyyi ñu dem faju ji continuer seenu liggéey sàkkuwuñ ci ñoom lu ñuy fay lu ñuy indemniser wuñ ko de doonte mooy yoon nag dinañ rey suñ bopp ba am li ñu bëgg a am waaye nañu xam ne ñun bu ñu taxawee fii di wax ñi nekk foofu actuellement buñ doon lim fii ba suba du ñu jeexal ndax am na ñu baree bari ñoo xamante ni ñun fa lañ leen bàyyi dem naa dem a dem a dem ba jour ba ma war a génne sax damaa am gàcce te fi mu toos ni kenn ku la ci woo téléphone sax man damay am gàcce duma xam lu ma la war a wax ndax nekkin ba nga nekk foofu moo tax man mayam kersa donte ñun defuñu dara bi ñu génnee it nit ñi dañuy jibile di kontaan jàppee ñu ay héros mais terewul dañuy am tuuti kersa suñu diggantee nit ñi ndax koo xamante ni yow xamoo woon sax 100 mètres fu mu féete Cap Manuel xamoo woon sax fu mu féete mais grâce à lii xew fii ci réew mi moo tax nga xam lii. que lan lañ ma jàpp parce que dama sol benn mono Sénégal ak bandeau vison rouge li tax nga may dox nag di ñëw si yoon ci la ma woo ne ma foo ma ne ko dama jëm Colobane dama jënd daal ma ne ma c'est impossible loolu mënul nekk lan moo tax nga sol mono Sénégal question bi mu ko njëkk a mooy ba xam sol mono Sénégal risque la Sénégal fii nii mu ne ma noonu parce que yi. ak booy Ousmane Sonko ñooy sooy moom Sénégal ma ne ko man de Ousmane Sonko sama candidat la moom mais nekkul ni damay manifester mu ne ma dangay fen mu ndëgg ma mbéj ma boole li ma metti ak li ma nakkar yëpp ànd ko ak xolu muñ te xam ne xëy na yàlla moom ki mu bëgg rek lay teg nattu ma yéeg ci oto bi comme li Omar Camara wax bu ma yéegee ci oto bi nag man façon torturé bu nekk torturé nañ ma ko mais ñun yàlla la ñu gëm ñu gëm ne lépp lu yàlla nekk neen la te noonu man dama takkoon ay ras te sama rase man gendarme moom bu ko dagoon am na beneen gendarme boo xam ne da ko ne carrément bul dag rase booy que booy dañ leen di bàyyi léegi léegi mais am na ñoo xam ne xam nañ ni nii ñii ñii dañ leen di defeere am na ñoo xam ne nañ loolu bu baax ki doon dagg sama rase nag paaka la ko doon daggee ci dagg boobu noonu mu gaañaale ma jamaale ma jamaale ma paaka bi ci bopp ma doon génnee deret bu bëri mais à chaque fois da am kàddu bu may wax man dama gëm ni yàlla moom bu la tegee nattu rek da nga koy nangu ñun loolu la ñu gëm te loolu te bi ñu demee Rebeuss tamit aussi loolu noonu lañ ko doon tëddaalee ci kaso bi beneen bi mooy ci wàllu kaso bi chambre 41 laa rentré ci weer bi ma fa rentré 2 jours weeru koor weeru koor gi yëpp dañ koo taxaw ak toog amul benn jour boo xam ne weeru koor bi te nañ ko amul te teewul ñu ngi ànd ak suñu ngëm ak suñu yakin weeru koor gi ba mu jeex amuñ ci benn bor te duñu nelaw dañuy taxaw ba fajar ñu xool di génn ñun bu ñu nelawee daa fekk heure cours jot 9 si naaj bu tàng jër la ñuy tëdd di nelaw bu ñu demee bi ñu tëdd si naaj bu tàng boobu noonu kon ça veut dire que ñii nii dañoo sonn